avec son gouvernement. li ñuy wax il y a des gens là ils ont de faux diplômes là du ñu sonal mais c'est pas possible ça va pas continuer comme ça. d'accord moi je vais de l'ordre là naa yoo xam ma war a def dama leen koy nag ngeen xam ko. ok léegi li ma jaaxal mooy. <laughs> yaa ngi ci géopolitique bi. pratiquement plus de quinze ans. waaw discours bi ça va ça c'est c'est frappant ça choque et c'est captivant mais problème bi mooy on a l'impression que nit ñi mënuñu capter capter ce discours ba léegi. gars yi dégluwuñu ko quoi. voilà. xam nga pour gis xam naa boo gisoon titre bi ñu def sax. war na la ticket le fait qu'on parle d'outsider. tey boo doon def micro trottoir. di laaj ah c'est là. non c'est pas de la provocation ah boo doon def tey micro di laaj booy yi 2024 euh, kan nga yaakaar ni mooy gagné taw xaw leen kan ak kan moo dugal euh, kii boo deful nag ci 20 personnes duñ la tuddal Mamadou Lamine Diallo. et pourtant il est là bokk na ci géew bi mais c'est lan moo tax Mamadou Lamine Diallo am problème pour. réellement euh, s'imposer. ci arène bi. am non problème. Ah, wala moom moo am problème mais. man je man dama am problème. non ah. moom moom moom problème moom moom chaque jour day am problème mais. non moi j'ai un problème avec dama jàpp ni waa tekki ñun suñu bopp. waa tekki seen façon de faire seen façon de faire de la politique d'accord Sénégal dafa am lu ñu gëm mais nan la ñuy def ba imposer wu bokk ci ñi nga xamante ni mais ñoom ñooy ñoom ñooy. ñoom ñooy d'abord xam nga yan sondage nga am mais les sondages ne disent pas ça. mais. tu as ah, raison mais yéen defal ngeen seen sondage suuf. ah bien sûr on travaille. il faut il faut savoir que nous on veut réformer le système c'est ça on veut réformer le système moi je veux pas rentrer dans le système di buuxante dajale sa xaalis yóbbu ko Dubaï wala feneen gars yi ci loolu lañ nekk ci loolu lañ nekk ils font part de la politique pour le Sénégal xamante nañu je ne suis pas là-dedans ça ne m'intéresse pas parce que système il faut que ñu réformer ko ne naa leen xale yi gisuñ ci seen bopp c'est deux pour cent mmh. ça peut pas continuer comme ça les autres que nous avons en face ils lorgnent nos richesses bien sûr c'est ça les enjeux mais yëfu tappale su ma ko bëggoon def je prends la mairie de Sédhiou ou de Goudomp bu xamante être ministre comme Amadou Ba là ou premier ministre comme Mohamed Dionne mais ça c'est ma portée quand même maa leen ci jëkk xam naa ko je sais comment faire moi je parle au français hmm. du ma seen morom ci loolu maa leen gën a xam àddina mais je le fais pas parce que xam naa ni du ma yóbbu fenn du yóbbu mon pays. quelque c'est ça c'est ça mon problème li nga bëgg a liggéey pour moi je vous dis il faut 5 pour cent de la force de travail qui soit dëggu comme man qui soit patriote comme moi pour faire bouger ce pays-là et ça c'est un travail avec la presse avec la communication sans doute c'est vrai que peut-être que y a des manquements bañu ma ko. c'est je suis un scientifique. non y a des manquements. parce que parfois parfois on sent que on sent